Euh, dinañu waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci wàllum actualité euh, Abdourahmane Sall ñoo ngi am mbégte ci euh, wuy si bi nga xam ne wuy nga ko sunu invitation ci rajo Rewmi FM. jërëjëf Abdou Khadre maa ngi lay nuyu bu baax di leen remercier ci invitation bi ngeen ñu jox di remercier également l'ensemble de vos auditeurs di leen di suivre donc à travers les ondes et également ci réseaux sociaux yi di ñaan yàlla aussi que. émission bi ñu def nekk émission boo am njëriñ. boo xam ne nañ si jëlee njëriñ pour askan bi yëpp. d' accord euh, Abdourahmane Sall bala ñuy dugg ci li nga xam ne mooy actualité ndax mën nañoo xam Abdourahmane sàll moom mooy kan fan la jàngee sa parcours tuuti bu ko defee auditeurs yi mën a mën a xam. waaw jërëjëf Abdou Khadre euh, man nag euh, côté kii professionnel profil professionnel je suis ingénieur polytechnicien. Donc, euh, tey si tey je dispose pratiquement de plus d'une vingtaine d'années d'expérience exclusivement yëpp si secteur privé bi laa ko defee ba tey fi may nekk nii. moo xam naa du ma bëgg dugg si entreprise yi comme que politique kii politique mais fan nga fan nga jàngee. maa ngi jàng école polytechnique bu Thiès. Mhm. donc fa laa génnee donc je suis ingénieur. ban année nga génne foofu. maa ngi fa génne en 2000. Mhm. Euh, ba léegi ça fait 22 ans. Mhm. donc je suis ingénieur. mais mais Sénégal est-ce que bëri ay ingénieurs. bëri bariwul euh, bari na si boo xoolee en fait euh, aujourd'hui ingénieurs yi nga xam nga xool ni am na ñoo xam ne ñu nekk en chômage aujourd'hui le marché n'absorbe absorbé wul ñiy génn ñëpp mais boo xoolee également di dëkk bi laaj comme développement surtout donc développement industriel développement au niveau des infrastructures pour ñu mën a tabax dëkk bi vraiment on est très. très en am na ay ingénieurs ñu nekk chômage. waaw waaw def am na am na ñoo xam ne dañuy jénn toog ay weer doo ko am liggéey. ah weer moom bëriwul nag euh, Dramane. waaw ay weer. na bari na bari na boo xoolee. mais par rapport tey boo xoolee côté euh, santé dangay gis ñu am seen i diplôme toog ay at yoo xam ne du ñu am liggéey. loolu tamit du yoon parce que boo xoolee problème mu santé yi am Sénégal nga xool suñu infrastructure sanitaire yi nga dem si hôpitaux yi du yoon loolu dafa du yoon ay médecins jën. Mm. toog ay weer yu weer. duñu am liggéey ak ay stage donc loolu du dëgg du yoon ingénieurs yi tamit c'est la même chose boo xoolee tey dëkk bi li mu laaj si tabax donc du yoon ay ingénieur jénn ñu toog ay weer pratiquement un an ñoo xam ne du ñu comme fu ñu nekk man miy wax ak yow man ñu suñuy temps man avant may jën laa commencé liggéey trois mois avant may jën entreprise bi ma bi ma njëkkal kee jël na ma bi ma pare sama projet rek temps yooyu da ngay avant ngay commencer di ñëw école polytechnique nit ñi parce que bés bi dafa nekk dafa besoin bi daf nekkoon mais dama jàpp ne besoin bi léegi sax la yokk parce que Sénégal fi mu toll nii dafa gën a laaj tabax. Mm-hmm. donc du ñu comprendre mu am des ingénieurs ñoo xam ni liggéey nañu seen xam-xam màcc ci yenn domaine technique yi ñuy génn di toog euh, seen xam-xam di di nelaw si ay ay. ay loolu pertement ci ah. bi la. jërëjëf euh, Abdourahmane euh, Sall loolu dañ ko doon mm-hmm. ubbee rek. yow yaa jiite euh, cadre yi ci parti bi di PRP euh, PRP euh, bokk ci benn coalition coalition Yewwi Askan Wi <clears throat> bala ñuy ñëw ci coalition Yewwi Askan Wi ak PRP taxawaay bi nga xamante ne am ngeen ko si ndax seen leader di Déthié Fall moom mën nañu wax ne presque moom mooy coordonnateur national bi bu coalition Yewwi Askan Wi léegi PRP bii ngeen taxawal ba ngeen ko taxawalee ak léegi est-ce que structuré ngeen ko est-ce que tamit bànqaas yi. law na ci biir réew mi yépp waaw euh, tout d'abord euh, taxawaayu PRP si biir coalition bi ak taxawaayu suñu leader Déthié Fall nee nga sax boo xool dafa mel ni mooy coordonnateur national te du coordonnateur national c'est le mandater national donc boo demee tey ba yaakaar ni moom mooy coordonnateur national yaakaar naa da nga gis liggéey bi muy def si biir coalition bi ba nga mën ba sa xel mën a dem foofu donc loolu dañ koy jël comme. Euh, mais mais mandataire mooy coordonnateur presque mën nañu ko waxee noonu. Euh, non tur yi dafa am sens xam nga bu ñu nekk coordonnateur national Yewwi Askan bi du moom moom mandataire mais dama jàpp nii rek. liggéey mandataire national. mandataire national. Mhm. mais liggéey bi mu def si biir coalition bi ni mu rafetee xam naa moo tax ba nga yaakaar ni. moom moo moom mooy. coordonnateur. mais dañ koy rafetlu loolu non xam man tax ma tuddee ko coordonnateur. xam nga tey par exemple tey mën nekk mandataire. Mhm. mais le rôle du mandataire mooy coordonner lépp lu jëm ci activité coalition Yewwi Askan Wi. waaw boo ko jëlee noonu. waaw ñu jàppee ko noonu. mais it rek dafa fësal ni tamit rek liggéeyam rafet na. ci coalition ci coalition bi. ba donc moowu coordonnateur bi di gën a di feeñ. loolu dañ koy dañ ci dañ ci dañ koy rafetlu. maintenant bu ñu dellu see si PRP. PRP dañuy fàttali que ni rek mi ngi juddu le 28 mars 19 2000 2021 donc amakul at. Euh, donc muy parti boo xam te tey fi ñu toll nii tey yaakaar naa ni Sénégal boo doon def sondage en tout cas bu ma naan sondage euh, comment pour xam na nit ñi xam nañ ko boo laajtee tey benn Sénégalais su ñaar boo leen laajee PRP ak Déthié Fall nañ ko xam si lu mu néew néew néew. donc mu nekk donc parti boo xam dafa juddu rek donc dox pratiquement mais en termes de structuration comme ni li ma fi andi tey comme ni nga ma présenté je suis le secrétaire national chargé des cadres ça veut dire que déjà am na une première structuration bu taxaw y a un secrétariat exécutif qui a été mis en place avec des secrétariats nationaux yu fi nekk maintenant nag ñi ngi euh, teg parti bi au niveau de l'ensemble du pays aujourd'hui Euh, le secrétaire national chargé des structures est en ñu ngi teg parti di monter ay cellules partout parce que dañ bëgg nag parce que di sos suñu parti dañu ne ñun dañu bëgg parti bi premier fondement mooy démocratie interne bi ñuy wootee bi ñuy ñu bëgg mu nekk une réalité ci parti ci biir parti bi moo tax ñu ne ñun bañ am jaay doole daal wala am jaay doole moo tax ñu ne dañuy commencer dans un premier pas bu ñu defee secrétaire exécutif national bi nga xam ne c'est à titre provisoire ñu commencé di lal cellules yi pour préparer suñu congrès nga xam ne képp ku am nombo tàkk ci parti bi congrès moo la siy teg donc ci base bi si base bi lay jógee moo tax fi mu nekk nii ñu ngi koy def ànd seeg dal di ko def nag di law tey tey cellules yaa ngi commencé di monter partout dans la Sénégal donc si fan ñu néew di ngeen gis ni donc le PRP mu ngi partout dans le. waaw mais mais Abdourahmane yaa ngi wax congrès. Hmm. yaa ngi wax démocratie ci biir parti PRP mais fii ngeen commencé nii parti yu baree bari foofu la ñu commencé woon mais li ñu gis Sénégal barina na yoo xam ne euh, mën nañoo xam ne benn yoon la ñuy def congrès wala congrès du fa am beneen bi euh, ci biir parti politique yi tamit bëri ci parti yoo xam ne gis nañ ne démocratie euh, amu ci ki nga xam ne tey mën nañ ne ki nekk ci bopp bi presque mooy bum di bum yi est-ce que tey loolu mënul dem ba dal ci seen parti bi. waaw wax nga dëgg c'est que parti sénégalais boo leen gisee ñu si ëpp effectivement noonu la ñu mel. Euh, mais man mi wax ak yow man musuma politique man PRP laa musa dugg ci politique. vingt 28 euh, mars bi Déthié sa sase parti bi laa musa dugg ci politique espace politique te bari nañu ñu mel ni man ci kàtt te ñoo ñëpp leen ci dugal c'est que dañu gëm ni ñun Sénégal. mën nañu tabax parti boo xam ne du am benn buur boo xam ne mooy nekk ci kaw di buuma ngi bunni. soo ko gisee ci parti bi nag bu ko dee ci doxalee. non bu ko dëccee doxalee li may euh, euh, dëccee nitu principe la nitu gëm-gëm la c'est un démocrate. doxalee gëm naa ni. gëm naa ni du ko doxalee. mais su ko doxalee woon. non xam nga bu ko doxalee woon it dinañ ko taaj ne ko lii dugaluñu si. ndaxte ñun ay cadre lañu dañu toog ba am at yi ñu am doog a dugg si politique. dugguñu si pour nekk foo xam ni benn nit mooy nekk ci kaw di buuma gi bu dafa am luñ ñu jaay ñu ñu tabax ko di ko jaay Sénégalais yi di si recruter ay cadres cellule bi ma yow tey cadres yi si adhéré kenn xamul nu mu toog te ñi si ëpp mosuñu def politique. te ñi si ëpp bi ñu li tax mosuñu def politique mooy loolu daan daw parti yoo xam ni ay nit dañ fay nekk di bu ma ngi buddi amul benn démocratie benn nit nekk fa def lu ko ne loolu moo tax ñoom ñëpp du seexlu woon politique mais tey ñoom ñëpp ñi si ëpp ñu ngi ñëw parce que dañu gis li leen di wan te bi ñu ñëwee aussi si secrétariat bi gis ni ñu doxalee ñu gis ni en tout cas ba fi ñu toll nii ànd na ak li leen di jaay. donc c'est pour dire que tout simplement que. démocratie interne boobu ñuy woote ñu en tout cas fas yéene nañ ko dëggal parce que nag dañu gëm ni tamit pour suñu parti dox parce que Sénégal dafa changé léegi ñi jàng dafa gën a bari jeunes yi kenn mënatu leen di dugal ci mbir yoo xam ni benn nit mooy nekk si loolu mu pour mën a jaay sax partie pour mën a jaay def ki sax foofu rek nga mën a jaar pour am adhésion. d'accord mais tamit euh, seen parti bi parti da ngeen am ambition pour ëllëg jiite jiite réew mi wala parti yóbbaale ma ngeen ko bëgg a def. waaw xam nga dañu naan euh, finalité parti mooy jël pouvoir mais ñun dañu contre ñun d'accord ñu si loolu ñun di jàpp finalité parti politique mooy def ba dëkk. participer si mooy def ba dëkk développé loolu mooy le pouvoir kii la le pouvoir stratégie la moyen la pour réaliser la grande ambition te grande ambition bi mooy développement dëkk mooy def ba nga xam ne sénégalais yi di dund dund bu neex seen dëkk dindi fi ndóol loolu mooy loolu mooy finalité parti parti politique accéder au pouvoir moyen la pour réaliser sunu ambition effectivement ñun on a on est en train de de bâtir suñu programme de société les grandes lignes sont définies ñu ngi déglu Sénégal yi dinañ ko taxawal bu ñu taxaw suñu programme de société nag pour réaliser ko la pour mën pour xam nañu mën a jénne Sénégal ci li ñu nekk nii mettre dans la rampe de la véritable émergence loolu nag pour ñu mën si nekk fokk ñu jaar par une station pour mën a gérer pour mën a créer le pouvoir pour mën si donc en aucune manière mënuñu nekk parti yóbbaale ma. d'accord léegi euh, euh, est-ce que tey am na benn kuréel bu ëmb femmes yi ci PRP est-ce que am na benn kuréel bu ëmb jeunes yi ci PRP. dans le secrétariat national dafa transverse il y a un secrétaire national chargé des femmes mouvement des femmes secrétaire national des jeunes que de très brillant Mouhamadou Dieng moom moo ko moom mooy le secrétaire national secrétaire national chargé de l'éducation secrétaire national chargé de la santé on a un secrétariat qui couvre tous les domaines du du pays et les gens sont en train de travailler xam naa d'ici peu dinañ gën a gis action yi résultat parce que nag ñun à l'image de notre président mhm. ñun dañuy liggéey lu bëri ci suuf parce que Déthié Fall ku ko xam-xam ni du nit boo xam ni day day day day wax ni day day day euh, wut ba di moom day liggéey liggéey bu bu kii si suuf n'est-ce pas ñun loolu daf ñu inspiré partout. mais est que est-ce que est-ce que euh, Déthié Fall est-ce que du mer moo tax mu taxawal parti. waaw. Euh, xam nga léeg-léeg dégg ñu ne la dafa mer takk soxna léeg-léeg takk pour faj mer takk soxna pour faj mer. Mm-hmm. est du Déthié Fall dafa. créer parti pour maire. noonu euh, li ma koy tontoo gis nga Déthié Fall bi muy taxawal parti bi ñu taxawal parti bi ñu waxtaanee man ak moom dañu dañu dañu waxtaan si projet Sénégal am lu ñu ndekk am lu ñu wax moom la ñuy doxalee am lu ñu bëgg ñu bokk ko parce que nag man ak moom yàgg nañ trop man ak depuis école polytechnique la ñu xamante ñoo bokkoon école donc bi ñu taxawloo ñu ànd man ak moom. ak ñeneen ñëw ñëpp ñëpp ñu ànd ñu ñëpp taxaw suñu parti ki bu ñu demee tey ba Déthié woo ak li mu waxoon ak fa mu ne woon fa la ñuy dem nan lañuy ñuy nan la ñuy liggéey principe yi tax man ma bàyyi lu bari ñëw ñu ànd ñu liggéey bu demee ba woroo ko di def lu contraire si loolu ba li may défendre nii tey fii si émission bi tey mu demee man bu ma mew du ma góor bu ma bu ma meree c'est normal dama war a mer parce que daf ma trahir bu boobaa donc Déthié pour dire tout simplement que Déthié Fall bu ànd ak sa Seck dans le parti Rewmi ñuy défendre ay principes di xeex la pouvoir bi fi nekk jàpp ni Macky Sall le président Macky Sall li muy def baaxul. xam-xamam jam ñaañu la yem. xam ne waa ne kii am jam ñaajo la mu koy wax fépp ba ñëpp naw leen naw ko ci loolu mu dem ci une liste d'opposition

principe yi ko yi ko yi ko gidéwul si politique léegi nag ñaari affaire moo am dëkk bi kenn moomu ko Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk dañuy defuñu politique ñu pour Mademba pour Massamba dañuy politique pour suñuy doom dañuy politique pour suñu askan. d'accord am ay am lu ñu bëggal suñu askan. d'accord léegi kañu àndal ne ma kañu àndal bu demee ba woor dañuy kii nag bu teg loo xam ni moom méngoo ak lañ doon défendre pour que ambition bi ñu amal Sénégal bi mu amal Sénégal mën koo réaliser. donc effectivement loolu justification Merle c'est tout à fait normal c'est une trahison si ay principe yi noonu défendre mu kii ko nag ba pare tegal loo xam c'est conforme ak li mu gëm ak gëm-gëmam nekk si. d'accord mais euh, Abdourahmane Sall man dama jàppoon ne PRP. ñu jóge parti réew mi rek ñoo fi nekk man mosuma xam ne ndeke am na ci euh, ñoo xam ne mosuñu def politique ñu bokk PRP. waa gis nga de man de mosoo ma gis si politique. xam naa bañ na leen sama tur sax jaaxal na la. waaw mais gis naa ci tamit euh, ay docteur Abdou Aziz mais est ngeen ay cadre yoo xam ne tey euh, bu ngeen gañe woon réew mi ay cadre ci biir PRP ñoo xam ne tey am nañ xarañteef euh, ci bu ñu leen dénkoon tey réew mi ñoo xam ne normalement ci biir PRP ñii boo leen dénkoon ministère de la santé ñii ministère de la justice ministère des finance nangam ak nangam. waaw euh, en tout cas man miy gérer cellule des cadres li may jot si si ñu adhéré ñoo xam ni bëgg nañ fësal seen seen bopp am ñoo xam ne tamit position yi ñu nekk bëgguñu fësal seen bopp dañuy liggéey si suuf n'est-ce pour di participer si si liggéey bi xaw ma nuñ toll te vraiment man en tout cas. waaw léegi mais loolu loolu nag ma ngi waaj a bëgg a métti euh, Abdourahmane di politique ba pare bëgg a. Euh, waaw xam nga politique nag dafa bëri te loolu fépp la dafa bëri. ay galgal ah, ay ay non pas ay galgal sax ñi ko constitué. dafa am ñoo xam ni waa politique moom stratégie la. Euh, dafa am ñoo xam ne dafa am ñoo xam ni peut-être visibilité dañ ko bëgg. am ñoo xam ni bëgguñu visibilité. wala ci cadre liggéey bi ñu nekk moo tax am ñoo xam ni ci cadre liggéey bi am ñoo xam ne sax du question cadre liggéey bi ne mais bëgguñu fës. waaw mais xam nga tey par exemple tey euh, nit ki mën na nekk ci parti PRP te parti PRP di opposition nekk si opposition bi cadre yoo xam ne na ñu liggéey ci entreprise privée euh, tey ñun suñu président yi wala suñu nguur yi gis nañ boo leen faree de sonal euh, mën nañ la indil ay jafe-jafe ci entreprise bi ngay liggéey naam mën nga bañ a moom entreprise bi nekk fa employé rek. waaw loolu loolu am na moo tax ma ne lépp am na si am ñoo xam ne loolu la am na ñoo xam ne tamit. visibilité la ñu bëggul même bu fekkee ni ñu benn risque dañuy préférer nekk si suuf di liggéey di fournir di c'était tout simplement pour répondre sur sa question pour dire que en tout cas dans PRP il y a d'éminents mais mais ñun suñu philosophie aussi c'est pas bu ñu jotee réew bu ñu kii diriger rek ak waa parce que loolu la ñuy xeex loolu mu c'est-à-dire que compétence Sénégal parti politique rek moomu ko. même yéen bu ngeen même ko ne ko am compétence sa koy jëlee. mais bu ñu gisoon mais pourquoi compétence bi Sénégal moo ko moom doomu Sénégal bu amee compétence Sénégal moo ko formé. mais bu Sénégal non non non non mais Sénégal ko formé Abdourahmane li ñu fiy faral di gis mooy euh, tey par exemple tey bu ngeen bu ñu leen faloon tey euh, bu dee am na koo xam ne. ba dara du dara ma ngi ànd ak Déthié Fall euh, fële ngay taxaw dégg ko mu ne waaw PRP dañoo trahir ñun ba ñu ànd ak moom Déthié Fall booba kenn kenn kenn gëmul ko kenn gëmul projet am nangam ak nangam yooyu xam nga yooyu ñoo koy dégg dégg nañu sax laa dégg ko ci Macky Sall. waaw xam nga man bi ma njëkkee dégg. Euh, président Macky Sall bi mu jëlee pouvoir en 2012 2013 ñu naan la patrie avant le parti bi ma déggee phrase boobu slogan boobu Sénégal yu bari doon ko rafet rafetlu mais man personnellement daf ma tiitaloon. lu tax ndaxte dama ne parti politique bu demee ba naan la patrie avant le parti cest à ki ko wax jàpp na ni mën nañ toll foo xam ni dafay am intérêt parti am intérêt parti. mu jël intérêt parti bi teg ko en avant. le fait que mu def précision boobu. mu def pré waaw mooy ki ki ki wax loolu. Mhm. dafa jàpp ni mën nañ toll foo xam ni dafay am intérêt patrie bi am intérêt parti bi mu ne man damay jël intérêt patrie bi au détriment de l' intérêt du parti. Mhm. ko kii wax loolu noonu la xalaatee. da nga a jàpp ne warul nekk si xelam ba mu koy xalaat. lu nekk si xelam parce que parti politique ñun dañ jàpp ne parti politique c' est pour la patrie et pour la patrie. mënul am intérêt parti bu nekkul intérêt patrie mënul nekk mënul am intérêt patrie bu intérêt c'est-à-dire que dañu jàpp nii intérêt patrie rek moo am. parti politique bu demee bay jàpp ni man mën naa toll foo xam ni sama intérêt parti dafa wuuteeg sama intérêt patrie loolu bu bu ko nit xalaatee rek ça veut dire que nit kooku narul jàmm cest à mën naa nekk situation boobu noonu te ñun nag dañ jàpp ni intérêt parti rek moo am. naam nag si biir parti politique di nga am nit ñu nit ñu jógee fu nekk nit ñuy xalaatee peut-être neneen mais. boo amee boo xam nga boo. waaw mais waaw man maa ngi li ma li may wax lu ma gëm la. waaw non mais man man laa la wax li ma la wax nii. na la di nga dégg dégg nañu fi ko ne woon Ablaye Wade ba dara dal ñoo doon jàppale dégg nga ko fex Macky Sall ñoo doon lekkandoo ay sandwich. mais loolu laa la wax dama ne la moom laa lay tontu nii man la ñun li ñuy gëmloo suñuy militant li gëmloo ñu ànd ñun mooy. dañoo bëgg jot si dara pour def pour développer Sénégal Sénégal nag moomuñu ko ñun kese ñëpp ñoo ko moom. Sénégal nee naa la Sénégal dafa investir si ay doomam li ñuy gérer parti politique bi ñoo ko suñu parti la mais Sénégal ñëpp ko moom. Hmm. compétence su mënti nekk compétence su Sénégal la man tey école publique laa jàngee def université daa jaar université dem école polytechnique. Hmm. lépp publique la Sénégal moo def si man. donc man samay compétence Sénégal la ko moom. Sénégal bu ko soxlaa daf ko war a jëriñoo. Ah, bu ñu nag yoree nguur fu compétence nekk ñu gëm kii mën na indil dara Sénégal dañ koy jëli buñ ko jëlul c'est une trahison à la nation parce que nag ay calcul politique warul tax ñuy xañ ñuy xañ réew mi. de la compétence. d'accord léegi euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h tey ñu invité Abdourahmane Sall moo jiite cadre yi nekk ci parti bi di euh, PRP. PRP mu nekk cadre boo xa euh, parti boo xam ne seen leader moom mooy Déthié Fall léegi Abdourahmane yéen seen parti bi da ngeen koo def maanaam li ñuy faral di wax yol yor radub radub gumba. xam nga radub gumba mooy da ngay rad ñoddi rek gumba yor rad rek ñoddi lu ñëw rek baax na maanaam yéen seen parti bi xoolu leen euh, ku am ay valeur kuy incarner valeur wala yéen xoolu leen koo xam ne tuumal nañ ko détournement ci lu leer euh, lu ngeen jot daal wala ku ñëw rek ngeen dugal ci parti bi wala seen parti politique dafa am ay nit ñoo xam ne moom ngeen soxla ci parti boobu da ngaa gis suñu parti. damay laaj ñu amul valeur. wala <laughs> non damay laaj. xam nga tey par exemple tey boo xoolam tey président Macky Sall. Mm-hmm. ci coalition Benno Bokk Yaakaar Macky lu mu jot indi ku bu ñuy liñ ki ñuy tuumaal escroquerie sax ci wàllum jël liste yi jàmbur euh, comme ni ngoom defoon Macky Sall da Euh, ku ñuy tuumaal arrogance wala nangam ak nangam maanaam gis naa ne moom man euh, lu mu gis indi yéen nag dama la laaj na la yéen seen parti bi PRP est-ce que du ku ngeen ku jot rek ñëw dugg. waa xam nga euh, ñun du ñu nekk di di juger def jugement de valeur sur si nit ñi li ñu gëm mooy am nañu parti politique teg ay valeurs yoo xam ne moom mu fonde parti bi. mais ku ñëw rek adhéré. may ma et valeurs yi ko fondé patriotisme la. justice la travail la solidarité loolu mooy valeur yoo xam ni moo tëgg moom lañu tëggee PRP te dañ koy doxal si biir donc nit ku melul noonu nit koo xam ne valeur yooyu amoo ko même bu dee ñëw nga parce que nag ñu nekkuñu si biir nit ñi ba dugg boo duggee boo melul noonu di nga xat si parti bi ba doo fa mën a nekk parce que nag li ñu li ñu tënk li ñu liyee ce sont ces valeurs te loolu dañu bëgg di ko doxalee mu nekk ci sunu sunu lien entre nous di ko incarner ci biti donc boo ñëwee nit xamuñu lu nekk ci biir xamuñu yan kii ma nga ñëw dugg gis ni ñun ñuy doxalee noonu loolu nekk soo xam ne mooy sunu ciment bu ñu liyee bu dee yow meloo noonu yow yaa fay xat ba jénn mais nag mënuñu nag toog di juger nit ñi naa nit ñi nii la ñu mel nii la ñu mel ku ñëw ñu doon non. d'accord léegi tey par exemple tey euh, Abdourahmane hmm. Jibril Ngom mi jëloon seen liste yi Yewwi Askan Wi ci Matam euh, indi si ay njublang président Macky Sall recevoir ko histoire bi ñëpp xam nañ ko Jibril Ngom moomu tey bu ñëwoon ne damaa bëgg a bokk bëgg a bokk PRP lan mooy nekk seen taxawaay. waa Jibril Jibril Ngom c'est c'est vraiment la honte du Sénégal loolu moom euh, Euh, dañ ko ñëpp ñëpp ñaawlu nañ ko et puis on en preuve pour dire que comment le président la première institution du Sénégal naka la mën a recevoir nit ku mel noonu devant tous les sénégal quel exemple on peut donner tey gis nañ bi Lions yi jëlee jëlee jëlee Coupe d'Afrique bi ñu leen recevoir gis nañ émotion bi mu créé jàngat bi mu créé si nit ñi si ndaw ñi c'est-à-dire que président de la République buy def ay acte def acte yoo xam ni nit ñi bu ñu ko gisee dañ siy jàngat maintenant bu recevoir Lions yi def ñoo xam dañu dañu sargal def lu rëy après ñu avant dafa recevoir Jibril Ngom foog ñu wax ñu mu wax ñu moom ba mu recevoir Jibril Ngom ban message la doon bëgg jox sénégalais yi bi mu recevoir la doon comprendre nañ ban message la mais bi mu recevoir Jibril Ngom man j'attends mu wax ñu quel est le message qu'il voulait au aux sénégalais maintenant mooy li ma la wax sànq rek ku mel ni Jibril Ngom bu ñëwoon xam nga Jibril Ngom Pastef la bokk lan moo tax mu dem peut-être que dafa gis ni na mu mel. méngoowul ak waa parce que moo tax mu ne moo tax ma ne la da ngay am ni nga mel nit ku melul noonu bu fa duggee day jénnal boppam day dem c'est-à-dire que tey Djibril Ngom bu duggoon tey ñëwoon tey PRP texte PRP yi munu ko munu ko ko tere parce que nag ñun ay démocrate lañ aussi suñu texte aussi moom mooy déterminé mënoo bind mënoo di combattre la démocratie bëgg la démocratie interne. même yéen ko këpp kees sax même ko këpp kees sax. ñu xam ne kii yoon xam ne kii moo këpp kees sax bu ñëwee PRP ngeen bàyyi ko mu adhéré. non xam nga PRP dafa am des conditions d'adhésion mënoon nag ne suñu condition d'adhésion yi lii la n'est-ce nit ñëw remplir les conditions nga ne doo fa dugg maintenant li mën rek mooy ku mel nen boo fa duggee doo fa gis sa bopp ba nga xam ne yow. yow yaay jénne sa bopp. d'accord leer na léegi euh, Abdourahmane yéen tamit PRP. Euh, gis nañ ne seen leader xaw naa xaw naa radical tuuti par rapport euh, pouvoir bi euh, tey euh, yéen ci ban opposition ngeen nekk mooy opposition bi ñu tuddee opposition bu radical bi wala opposition bi nga xamante ni ñoom mooy ñu nooy ñi ñi nga xam ne seeni wax leerul seen doxalin leerul kenn xamul dañuy opposé wala opposé wuñ yéen fan ngeen ci nekk. tontu si sa question tontu baa ngi si. ñun opposition la ñu nekk on s'oppose au pouvoir bi fi nekk en place. radicalement. xaw ma loo tuddee radical mais en tout cas pouvoir bi si nekk en place bi président Macky Sall incarné dañ jàpp ni c'est pas un bon pouvoir foofu ñu jëmee baaxul seen leen baaxul ñuy def tout nag pour jële leen fi bu loolu nga tuddee radical te radical donc radical la. ñu si la nekku ñu di di teg fii di teg fële su yow sa question sax leer naa ah di nga ko ni nga ko. di nga ko kii da ne da nga ne sa sa da nga ne. seen président kon boo ko leer fii te amul benn sénégalais. boo fi posé question. naan PRP ak son président de Fall fan lay bokk muy hésité amul. ok léegi léegi dafa leer nañ fi ñu bokk. waaw léegi léegi xam nga tey par exemple tey dafa am parti yoo xam ne. xam nga tey par exemple tey. Euh, dama koy faral di wax man boo ma laajoon bu mel ni coalition bokk gis-gis dama naan la man xawma li ñuy def leerul ci man boo ma laajoon PDS dama naan li ñuy def leerul ci man boo ma laajoon Pastef dama lay wax na ne li ñuy def leer na ci man maanaam di wax lu leer di def lu leer foofu lañu toll léegi loolu moo tax ma ne la yéen fan ngeen ci nekk. nee nga boo ma laajoon Pastef ma wax boo ma laajee PDS ma wax. waaw boo ma laajee PRP Déthié Fall looy wax. waaw non PRP da ngay poser question bi poser question bi <laughs> benn sikki saaka que ni bu leer. wax lu leer daal def lu wax kay leer ga du ko am ñun kay on mais bu leerul woon président Déthié Fall dem si mburok sow bi n'est-ce mm-hmm. moom da ko fi bàyyi. d'accord mais mais est-ce que Déthié Fall bu bu ko président woo woon tey est-ce que yéen di ngeen ci ànd. non xalaatoo ko. woo ko si ban si ban si ban kii. si ban kii pour ñu ànd liggéey. l'intérêt du pays. non non aujourd'hui ñun dañ jàpp ne l'intérêt du pays mooy Macky Sall jóge fi loolu mooy sauvegarder intérêt Sénégal ñun loolu la ñu jàpp. si loolu la ñuy liggéey. d'accord mais léegi loo wax ci euh, taxawaayu président Macky Sall ak réalisation yi fan yi Euh, train express régional bi euh, stade Maître Abdoulaye Wade Dakar Arena bi euh, ma ngi commencé def ay ma ngi mel ni daal luy defar image am noo gisee taxawaay boobu. waa gis nañu mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi nekk dans une campagne de communication parce que si la nekk campagne de communication pour parce que gis na ni kam ni mu ko daan waxee bàcc yi bàccu local yi métti na xam naa mi ngi jéem a defaraat pour jéem a xool naka lay rattrapé pour législative bi mais foog mu xam ni kiyam dafa jeex nguuram dafa jeex. te les réalités nguuram dafa jeex. no Sénégal yi dañ ko ko dañ ko dañ ko ko wan. mais constitution bi moo fi nekk nguuram mën naa bañ a jeex. su demee con xaar conseil constitutionnel. bu dee dafa bëgg si biir si biir troisième mandat ngay wax. bon débat boobu man dama ne woon gaa dootuma si sore parce que dañ see wax a wax ba sonn mais li ma bëgg a wax rek mooy mooy nit. mais yow yaa ne nguuram dafa jeex. Mhm. mais am na ñoo xam ne jàpp nañ ne nguuram jeexul am na ñoo xam ne jàpp nañ ne dafa def ay réalisation moo tax muy inauguré ak a ak a wax. waaw mais xam nga euh, en 2000 euh, bi muy changé constitution bi moom si boppam le président Macky Sall mu koy changé moom si boppam du dugg seet si affaire juridique moom si boppam moom moo ne damay def bind constitution ñëw si man man en tant que citoyen mu ne ma damaa bëgg nga votel ma constitution bi. ma laaj ko man citoyen ma ne ko mais constitution bii ma lay laaj avant may voté est-ce que bu ma la votélee da di nga def après deux mille vingt quatre di nga def mandat wala mu ne ma li mu bind kii bi leer na du ma ko def ma ne ko non non ba léegi leerul yow affaire bi foog nga waxaat ko mu waxaat ko sama ministre gi ma ne ko avant may voté li may voté texte bii phrase bii leerul si man foog nga leeralal ma ko avant may may voté. mu ne ma mais leer na nul ne peut faire loolu kay yow loo bëggati maa la nii lii laay lii laay def donc ma ne ah bu lii laay voté kon nga ne loolu nga voté le Sénégal est témoin n'est-ce pas du ma dugg si considération juridique ah damay dugg si considération morale ak ak wax dëgg nga dem di jënd benn affaire ki lay jaay na lii laa la jaay ma ne ko bon bu dee loolu la ma jël sama carte ma voté n'est-ce ma voté ba pare mu ne mu ne daf ko bëgg defaat ne ma léegi dañuy dem si juge ba mu wax que ni la ma la ma la waxoon noonu est-ce que am naa droit wax ko est-ce que foofu la ma bëgg dugal n'est-ce pas non du ça la haute trahison bu daf nekk si xelam on ne peut pas trahir peuple comme ça loolu loolu trahison la wor la waxuma toujours wor la kaay ma jaay la lii may ma kaay ma jaay la lii lii lan la nga ne ma lii lii la ma laajaat la nga waxaat ma jël say kii yëpp ñëpp wax ma ma ne donc jënd naa ñu tegal la bandi yi léegi nga ne léegi donc loolu te gëm naa ni nekkul si xelam gëm naa ko. Ah, non non gëm naa ko gëm naa ko peut xam naa ni day jéem a nju day jéem a daf ñuy jéem a nax tuural tuur lëndëm n'est-ce parce que quand même jàpp naa ni quand am na tuuti dignité ak tuuti respect à son boo xam ni mënul toog ne lii laa leen jaay. ba pare ñëw de yaakaar naa ni loolu loolu pour man loolu Macky Sall. kii na mais xam naa loolu peut-être que il est dans la manipulation politique. d'accord mais léegi euh, mais léegi yéen euh, Abdourahmane Sall yéen surtout yéen euh, seen leader day wax naan ay Macky xam-xamam jam ñaajo la yam yéen fan ngeen teg ne Macky Sall maanaam. amul xam-xam wala li Sénégal yi doon xaar ci moom lu ci ëpp defu ko. waa xam nga au delà de de ça Macky Sall xam nga avant ngay jël pouvoir da ngay jaay programme ñu jëndal la ko donc jugement bu ñu mënti def dañ koy def rek par rapport ak la nga jaay parce que nag au delà de même de même président Déthié bu ne xam-xam fii la yam tout ça loolu avis la n'est-ce pas ñu que je partage totalement mais li ëpp solo mooy Macky Sall bi ñu jël pouvoir. ba mu naan fal leen ma lan la waxoon parce que en fait tout jugement bi ñu mën def c'est par rapport à ça maintenant bu ñu jëlee la mu waxoon muy son premier plan yoonu yokkute ak son plan Sénégal émergent ñu comparé ko ak tey fi Sénégal tollu c'est un échec criard Macky Sall deuxième mandat il avait promis un million d'habitants de de d'emplois nest pas loolu waxoon ñëpp ba ñëpp tey on parle de plan d'urgence yu ndaw yi pour xool nu ñuy absorber kii les taux de croissance yi ñu waxoon sur le développement économique kenn laalu même avant Covid bi yi mu doon projeté kenn mosu si atteindre dara bi Covid bi amee bi ñu réajusté seen seen plan ils avaient prévu benn taux de croissance cinq et quelques pour cent en deux mille vingt et un on a eu quatre et quelques pour cent donc atteindre wuñ ko donc nit da nga koy juger par rapport ak la mu waxoon te nga jox ko lépp mu def ko. maa ngi naan benn benn bis maa ngi naan benn waaye ma ne gars yenn saa yi dañuy mel ni comme sa jabar ne la daf lay toggal méchoui nga ne ko méchoui ñaata lay jar mu ne la cinquante mille nga jox ko cinquante mille mu dem ba si ngoon ñëw ne la dollil ma cinquante mille doyul nga jox nga dolli ko muy soixante mille nga toog ba guddi reer bi war a teg mu andi la mbaxal n'est-ce pas nag léegi naam andiwuma méchoui mais nangul ni andi naa reer n'est-ce pas ne la apprécier mbaxal mi mais doo ko mais naka naan defoo fi dara n'est-ce la ma dige woon ak yow ak lañ la jox lépp mais ak fi ñu andi ak li ñu tegal dafa dafa wute. d'accord mais yow kon ah. euh, euh, Abdourahmane jàpp nga ne ma président Macky Sall euh, taxawaay bi mu waroon a am ci éducation bi taxawaay bi mu waroon am ci wàllum santé suñu plateau médical bi taxawaay bi mu waroon am ci. politique d' industrialisation bi comme tabax ay usines euh, xeet yu demee noonu fexe ba askan bi am confiance bu mat sëkk ci wàllum yoon justice bi indiwaat espoir euh, fexe ba ñu am benn indépendance alimentaire loolu euh, est-ce que jàppoo ne am na lu ci def. mais <laughs> boo xoolee yi nga cité yëpp justice bi. aujourd'hui justice mooy la nga xam ni ñëpp koy défier fii kenn wóolatul kenn kooku moom jaxul sax ñu si ñu si ñu si ñu si sori donc un échec total ci la justice éducation jàng bi ren xoolal ni mel n'est-ce on parle de sauver l'année donc c'est la catastrophe fii lañ gis ay xale yu toog si ay briques di teg seen kii di jàng donc foofu moom kenn kenn waxul santé yaa ma gën a xam demal hôpital naan hôpital Dalal Jàmm aujourd'hui seen kii d'opération ça ne marche pas depuis depuis longtemps tabax nañ hôpitaux Kaffrine Touba <coughs> Kédougou non non tabax nañ ay hôpitaux c'est pas tabax mooy li may wax c'est que Macky ils sont pas tabax ki la finalité la finalité c'est de régler le problème de la santé n'est-ce pas que nit bu ñu feebaree dem faju à des coûts acceptables pour tout loolu mooy loolu mooy finalité bi et aujourd'hui finalité bi ñëpp xam nañ ko donc yi nga cité yëpp. est-ce mais Macky gisuñ ko mu mu tabax muy tabax maanaam ay ay industrie maanaam. mais maanaam lu jëm ci wàllum industrialisation. ban ban usine ngeen gis Macky Sall bi fi nekkee ak ban usine lañ fi lañ fi kii c'est-à-dire que li mu def yëpp Macky Sall boo xoolee mooy. des des des des réalisations des constructions de prestige te loolu boo ko xoolee c'est pas compliqué xaalis la boo xam ni tubaab yi ñoo la koy jox lebal la ko ne lii lañ ci bëgg tabaxal la ko tabaxal la ko. ngay à des prix très cher nga jox leen marché bi ñu jëlaat ko pour euh, exploiter ko suñu jox la say nit. cest à euh, mais loolu yaa dafa mel ni tey man may jaay ginaar ness ce man jaaykatu ginaar la ma ne léegi dama lay lebal 10 000 ne la nag 10 000 bi da koy jëndee ginaar par force n'est-ce pas. Mm-hmm. ginaar bi yoroon jël 10 000 ma jaay la ko 15 may la bon. ginnaaw bu doon jar 5000 ma jaay la ko 7000 n'est-ce pas. Mhm. donc di def naa déjà. kii si maa la koy rayal da nga may fay rayal da nga may rayal bi maa koy suqi nga ma kii bi togg ba pare jox la ba pare jox la kii loolu la ñuy tubaab bi di def moo tax tey y a réalisation des réalisations de prestige. léegi léegi euh, jërëjëf euh, Abdourahmane euh, Sall yow yaa jiite cadre yu PRP léegi ñu ñëw ci coalition yi Euh, yeeyu askan wi élection locale yi passé na euh, dégg naa seen leader yi nee nga di ngeen si def euh, benn évaluation ci seen mais li ñu si bëgg a wax rek mooy est-ce que seen investiture yi ngeen doon def est-ce que yomboon na ci seen biir yéen. waa mais xam nga naturellement coalition bu am plus du vingtaine de partis politiques ñëpp am des ambitions donc et puis mu nekk ay élections locales ñoo xam ni même boo demee si localité yi si gox goxaan dafa gis ñoo xam ni. sax politique newuñ si parti politique mais bëgg si bokk am aussi des forces locales ñoo xam ne dañu peser localement forcément du mën a du mën a yomb n'est-ce mais li am solo rek mooy on a su gérer ça gérer nañu ba nga xam ni en tout cas résultat yi ñu si am méngoo na ak lañ yaakaaroon donc xam nga dañ naan c'est le résultat mooy valider stratégie résultat bi nga am mooy tax nga nax sa stratégie bi nga def baax na wala baaxul boo échoué wee mën nga ne la ma defoon baaxul mais boo réussir da nga naan la ma defoon baax na te en tout cas les résultat élections locales yi où pratiquement toutes les grandes villes du toutes les villes du Sénégal ñu ñoo ko gagné n'est-ce pas benn ville lañ gagné mooy Pikine te xam nañ la fa xew dañu invalider suñu liste n'est-ce pas donc boo xoolee résultats yi ñu am ak moyens yi ñu si def. ça veut dire tout simplement que investisseurs yi ñu def naam metti woon na mais ay investisseurs yoo xam ne joxe nañu résultat maintenant nag groupe bu nekk coalition bu nekk foog mu am c'est seen normal parce que ñu bëri dañ bëgg servir seen i seen seen i gox mais yéen PRP euh, est-ce que am ay maire waaw am nañu maire bien que y par exemple docteur Abdou Aziz Aziz Mbodj qui est maire donc euh, de donc euh, am nañ maire bien vrai que ñun élection locale yi bi muy ñëw ñun ñu ngi juróon mars élection locale yi c'est même on était à pratiquement sept mois mais ñun rapidement dañu comprendre oon enjeu locale yi xam ni c'est des élections yoo xam ni enjeu national la am parce que le Sénégal dafa nekkoon la croisée des chemins boo xam ni Macky Sall bu ñu ko dooleeloon joxaatoon yenn kii dina tax mu def mu mu dugal réew mi si tuuxi duna moo bi ñu comprendre enjeu national bi ak suñu esprit patriotique nga xam dañuy mettre toujours la patri moom rek moom comme ni ma moom rek moo am intérêt Sénégal parce que balaa ngay sauver sa néeg sauver sa kër kër moom bu bu amee menace u incendie néeg amatul solo moo tax ñun si bi coalition bi même boo gisee le président Déthié Fall dem ci la c'était le mandataire national te pourtant il n'était pas investi fenn te boo xoolee. moom moo ko bëggul moom non c'est-à-dire que moom enjeu national bi la la la ko jox xam ni tey waxoon na ko local yi muy premier tour élection présidentielle xam ni donc coow coow li. problème bu national moom moo tegu donc mu ne moom nest pas même euh, na bàyyi bañ nekk si débat xëccook yooyu mais joxewu completement ba mel ni sax que ni moom moo gën a in moom gën a euh, investiture dafa mel ni waa kalifa Sall taxawu Sénégal ak waa Pastef presque ak pur presque ñoom ñoo mel lu ngar daajoo mbir yi euh, lu waral loolu. waaw bon man du ma dugg trop ci ci man damay jàpp mooy coalition la. Euh, yeewi askan bi la et askan bi moom moo donc ñooñu même bu fekkee nii boo xoolee en bu de nombre ñoom ñoo see mais ñun ñoo ko décidé ñun ñoo ko bëgg donc loolu phase su investiture yi la woon. donc phase su investiture ñun ñoo waxtaan ba d'accord que ni diw fii lañ koy teg diw fii lañ koy teg donc ça c'était avant avant les élections maintenant bu ñu demee ñoom ñu koy dañ koy rafetlu c'est la coalition qui a gagné. donc jàppatuñu ni ay man du mooy raisonné aujourd'hui Pastef. Euh, mais mais est-ce que amu leen lu ngeen ci benn regret. non bu ñu doon am regret ci investiture lañ koy kii maintenant investir nañ leen ñu ànd ak ñoom liggéey man mbaaw bi ma nekk ka ñu nekkoon suñu tête de liste Pastef la bokk mais j'ai tout fait pour mu gagner nest pas. campagne nañu bu doon ñaan. donc mais ce que yéen li ngeen def nii xoolatuma ko woon ni xoolatuma ko woon. membre Pastef ah, d'accord léegi membre Yewwi Askan bi laa doon gis. man gis naa fu bari. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, Pastef ñoo fa nekk presque ak waa Khalifa Sall mais est-ce que li ngeen def du woon du woon stratégie bu ngeen teg pour euh, législative yi. no strategie bi ñu tegoon stratégie pour local yi la woon. mais li non da ngeen a seddee ci local yi am lu ngeen bàyyi am compréhension bu ngeen dawal. est-ce que tamit du ngeen teg comme prétexte que ñun si local yi dañoo amoon compréhension bi yéen itam Pastef Khalifa Sall ni ngeen am compréhension bi ci élection législative yi. non loolu mooy moo nee la ñun en tout cas PRP premier suñu première valeur mooy valeur de patriotisme loolu mooy ki nekk di calculer ay ay calculu parti positionnement des trucs ñun c'est l'intérêt de la du pays moom moo ñu ñor bu ñuy nekkee aussi si phase législative yi on va mettre en avant. intérêt Sénégal xool quelle est la les meilleures investitures à faire pour le bien du Sénégal. loolu la ñuy xool est-ce que jàpp nga ne dina yomb euh, investir élection législative yi. non naturellement de yomb parce que ay nit la ñu ay partis politiques ñoo ko constitué am des ambitions des ambitions différentes élection législative beneen réalité la différente des élections locales n'est-ce pas donc naturellement ce ne sera pas des investitures faciles mais amul problème on a géré les locales. législative aussi on va les gérer dinañ waxtaan dinañ déggu dinañu def suñu liste et. mais jàpp nga ne du tas feeg législative yi. newoon nañ day day tas avant local yi tasul pourquoi muy tas ab kii feeg législative yi en tout cas gisuma lu ko war mën a bu bu amee na ma bett et ji et nii leader yi di doxalee tey ñoom ñëpp déjà ñu ngi ànd war a dem Tivaouane n'est-ce pas donc li ñu lay doxee gisuma signe de fissure. mais est que tey par exemple tey yéen si seen biir PAT PRP. seen réunion interne yi ngeen def est-ce que du ngeen wax président Déthié na ko ñun élection législative yi locales yi passé bëri na foo xam ne suñuy candidat naturellement logiquement politiquement parlant ñoo foroon a nekk te investir investiruñu leen dañoo bëgg nag am taxawaay ci élection législative yi ndax loolu du waxtaan interne bu ngeen ko junj. Abdou Khadre dafa am lu ma bëgg wax loo <laughs> kut ko poussé kut ko kut dans ce dans ce mais nee naa la ñun. ñun bu ñuy kii la ñuy jiital mooy l'intérêt de la quoi du Sénégal n'est-ce maintenant nag ay nit mën nañ am ay frustration loolu c'est normal c'est naturel mais en tout cas dans nos prises de décision décision yi ñuy jël on va mettre en place l'intérêt du Sénégal et intérêt Sénégal à travers les élections législatives mooy que la coalition Yewwi Askan bi nekk une coalition forte d'accord pour mën a gagner ces élections là yow Mbao si ban département la Pikine. Mm, Mbao Pikine waay. Euh, yow xalaat nga nekk bokk ci ñi ñi investir foofu en tant que euh, ku jiite cadre euh, parti bi ndax jiite cadre parti nag du lu ndaw ci benn parti politique est-ce que xalaat nga nekk bokk ci ñi ñi investir ci au niveau départemental xalaat nga ko. bon encore une fois. non dama na xalaat nga ko. waaw waaw <laughs> naa la tontu <laughs> encore une fois li ñu intéressé mooy. jëlee fii gagné kii on va analyser les choses de la manière la plus objective possible xool ñan ñoo xam ne au niveau du département de Pikine ñan ñoo xam ne bu ñu leen investi parce on investit pas nag pour perdre on investit pour gagner ñan ñoo xam ni bu ñu leen investir en toute objectivité yaakaar nañ ni nañ mën a porter draper pour ñu pour ñu mener vers la victoire. d'accord mais xam nga mbaaw gi nga nekk mbaaw seen candidat local yi Pastef la woon. législatif euh, est-ce que yow sax boon nga nekk maire Mbao non man positionné wu moom je n'étais pas candidaté wu moom. lu taxoon. waaye mooy li ma la waxee c'est-à-dire que ñun on avait l'objectif véritablement de gagner la coalition yi Benno Bokk Yaakaar partout au niveau national wan leen wan ni Macky Sall il était vraiment euh, minoritaire dans ce pays n'a plus la majorité loolu moo doon suñu suñu objectif. mais mais mais atteindre leen ko ndax moom nee na moo gagné yi. non euh, moo gaañee boo xoolee en terme de nombre de communes commune. mais Macky Sall en 2019 il avait 58 pour cent élection locale yi boo xoolee ñi ko voté la c'est 42 pour cent malgré que def na ay njuuj njaaj Pikine éliminé suñuy liste éliminé suñuy liste dans pas mal de temps nga xam ni bokkuñu les grandes villes les cinq on a gagné les quatre totalement ak à 46 pour cent la am moom il a eu pratiquement vingt six vingt et quelques pour cent non nekk te dafa sentiroon je suppose que Pikine bu ko validé cent pour cent des des villes da koy perte n'est-ce tax mu invalidé Pikine ba Cour jox ñu jox ñu dëgg n'empêche Cour suprême ñëw teggiwaat ko c'est-à-dire bu ko bàyyi woon mu dem ñu gagné ko Macky Sall si 100 pour cent des villes. dañ ko te foofu la ñu la ñu la ñu la ñu la ñu la ñu suñu campagne yi fa lañ ko gën a kii cest à que tey. kon bu ngeen demoon Pikine gagné ko. mais ça c'est c'est mais loolu la xam. et et même l'opposition l'a gagné dañ def ay ñu njaj ba gagné wàllu laa gagné ça c'est clair c'est c'est c'est tous n'est-ce pas malgré def nañu ay kii gagné wuñu. d'accord léegi léegi euh, Abdourahmane balay hmm. émission bi jeex lu jëm ci wàllum euh, parrainage bi ci élection législative yi est-ce que ni ñu doon invalider seen liste ci locales yi est-ce que tamit parrainage bi ñu leen ne yéen seen liste bi seen parenage bi ngeen am ci raison sangam baaxul. bon parrainage yi avant ma damay tout simplement attirer l'attention quand même de tous les Sénégalais parce que aujourd'hui ce qui se passe est extrêmement grave. la Cour de justice CEDEAO avait dit que avait rejeté le système de parrainage du Sénégal avait donné ne Sénégal même en six mois war nañu defaraat jox leen délai pour ñu xoolaat kii de parrainage bi président Macky Sall jël décision justice CEDEAO dem teg ko fale continuer ko alors que CEDEAO avait décidé par un arrêt de justice man je, je, je ne sais même pas pourquoi journalistes tey fi wu ñu débat boobu. loolu wax nañ ko ba tey. mais dañ si war a continuer di wax parce que tey. li tax ah, mais mais Sall ñoo ngi si wax aussi. invité nañ ci maître Ablaye Tine mi defoon dugaloon recours bi. waaw waaw mais quand même une parce que tey li tax Macky Sall def blocus euh, Mali c' est parce que c' est une décision de CEDEAO. li tax non mais décision CEDEAO ñun xam nañ ne Macky Sall musul respecté ay décision CEDEAO. waaw mais nag foog nag ñun Sénégal ñun ñi nga xam ne day jël suñu koppar. di ko def CEDEAO di ko def parce que les magistrats CEDEAO ñu ñoo leen di bokk dañu leen di fay di ko di entretenir le système juridique de la CEDEAO bu fekkee ñun dañ gëmuñu ci boobu qu'on arrête qu'on sort de ça parce que du ñu jàpp suñu xaalis l'argent du contribuable di financer des organismes internationaux di leen kii ñuy de mais non mais leer na mais il faut que les il faut que ñu jël suñu responsabilité par rapport à ça Macky moo fi mën nekk toujours di def lu ko lu ko neex quand des quand il des des décisions de justice bu ko arrangé wul mu jël ko teg fële. kon euh, kon yaa ànd nga ci appel à la résistance bi maître Abdoulaye Tine wax. mais tout à fait tout à fait et ça pour man même l'opposition toute l'opposition tous les citoyens sénégalais et même. société civile bi même société presse bi ouais, même dans les autres pays parce que quand même CEDEAO la cour de justice CEDEAO c'est pour toute la CEDEAO. Ah, d'accord léegi léegi. non les autres doivent même exiger à ce que le Sénégal respecte les décisions. léegi léegi su ko su ko continuer parrainage bi c'est une porte ouverte. léegi su continuer parrainage bi. mais bu ko nee parrainage c'est-à-dire. parrainage da ngeen dem euh, élection. mais parrainage en tout cas nous au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi il n'y a aucune raison que parce que ku am quand même plus de pour cent des des voix boo xoolee locales yi. waaw non xam nga sànq yi yow. am na list yu ñu leen invalideel yoo xam ne yéen dem ngeen si yoonu amaana yoon joxoon leen dëgg. waaw dama jàpp ne ki ñeme euh, xam nga tey ñu ne benn Bokk Yaakaar invalidé wuñ benn listam ci Sénégal xam nga loolu yéen wut maanaa mm-hmm. yéen ni ñu leen gàllankoore ci loo xamante ni amaana lu leer naññ la. Mm-hmm. est-ce que mënuñu leen gàllankoor tamit ci législative loo xam ne lu leer naññ lay doon te bu boobaa lu ngeen si man non bu boobaa moom c'est sûr que duñ ko nangu ah, parce que première fois bi bon peut on a été. non da ngeen a yàgg wax duñ ko nangu ngeen di mujj. <laughs> duñ waaw waaw waaw mais waaw mais bii xam nga l'élection euh, euh, législative c'est des élections nationales xam nga élection locale dafa am benn mooy c'est c'est c'est local ba nga xam ne un problème locale peut-être que sur le plan national peut-être que gars yi duñ ko dund comme ni ñu ko war a dundee mais une élection des élections législatives c'est des élections nationales tey je ne pense pas xamul fenn fu ñu mën a nangu. que nii la coalition Yewwi Askan Wi wala la coalition Wallu wala benn une grande coalition lépp sur par ay superficie ñu jël di teg seen i par des ay nju njaaj di leen éliminer ça on va pas. d'accord on va euh, ñu jeexale benn question indi ne tournée président Macky Sall bi tournée économique bi yéen lan moo tax ngeen koy tuumaal ñenn si yéen naan campagne déguisée la. bon euh, campagne déguisée ñi koy wax peut-être que il voit l'aspect politique de l'affaire parce que. Macky Sall ñu ñëpp xam ne lépp lu mu def y a une am na benn visée politique bu nekk derrière maintenant man personnellement en soi c'est pas très gênant parce que un président peut-être de la République am na sañ-sañ comme que mooy diriger Sénégal de temps en temps mu dem au niveau des population présenter leen li mu li mu nar li mu man personnellement sa ne me ça ne me gêne pas maintenant rek foog mu mën a def la part des choses xam ne bu jénnee pour ki kii économique jël les moyens de l'État di ko fa utiliser foog mu xam ni que les moyens de l'État en aucune manière warul financer des activités purement politiques de son parti. D'accord. foofu nag la ñuy woowee nag foofu la ñuy son sens patriotique des choses ne pas utiliser nos détournements en fait d'objectifs noo moyens pour ay ay ay visées purement politiques. d'accord jërëjëf euh, Abdourahmane Sall ñu lay sant di la gërëm. ah jërëjëf euh, euh, Abdou Khadre ñu ngi lay ñu ngi donc remercier bu baax a baax si si si invitation bi espère yaakaar ni débat a été quand même assez assez productif ah. jërëjëf euh, Abdourahmane Sall mbokk yi mu jiite cadre yi bokk ci parti bi di PRP li mu nekkoon seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ci rajo réew mi FM ngeen di sànd ak Abdou Khadre moo nekkoon ci wàllu bi mbokk jëre ngeen jëf jàmm ak jàmm.